léegi nag troisième mandat bi waa ji nee nañu da koy laaj ñii du ko laaj ay farandoom ñi ngi wax moom sax génn na ci euh, international bi ci presse internationale bi nee na affaire bi nekkatul juridiquement du débat moom dina xool ndax dana def wala du def lu mu ci mën a doon daal mooy décider ndax moom moo war a décider day def wala les sept sages yi nga xam ne ñooy conseil bi ñoom ñoo war a wax. xam nga balu poupée poupée xam nga poupée. poupée poupée waaw ñu foyee. yi ñu <laughs> xam nga xam nga jàppe nit poupée jàppe Sénégal yi poupée. waaw weesuwul. Mhm. ñu ne 2018 jot na ñu dem woteele élection. Mhm. jox la réew mi. Mhm. ak 83 pour cent xaw ma 50 58 pour cent. 58 la nga dem toog juróom-ñaari ba mu jeex nga demaat élection dafa juróom-ñaari da ngay leen waaye juróom-ñaari at ya ngeen ma faloon. yéen nit ñi. yooyu bokkut yooyu yooyu yooyu yooyu la. yooyu dem na ci sama fuuf. dem na ci sama fuuf juróom ñaari at ngeen nañu muqus la. ñu ne waa léegi lu bëgg nga ne léegi juróomi at bii ngeen fal ma. Mhm. yow la gën a bëri nga bañ jël lu gën a ndaw nga ne léegi juróomi at bii ngeen fal ma. Mhm. mooy sama premier mandat. fa laay commencé fa commencé. bii ñëwaat mooy sama ñaar lu mandat su ma ko defee su ma ko defee mu jeex te kat bis bu ko Macky la gagné deuxième mandat am mhm. nga kër kër dee amaguma fa kër. ut fa kër. Ah? waaw ndax boobaa dañoo woote assemblée nationale loi boo xam ne 2035 bi nga dégg waa APR di ko kafee noonu. waaw billaahi mooy am ci réew mi 2035 la fi jógee. 2035 hmm? sax bu ñu ci yeggee am na ñu muy demee sax ñu ñu ñu ñu dem 2040. ah oui. li Ousmane Sonko di wax. na sëriñ bi nag xaaral sëriñ bi yow 2035 ba 2040 fu ñu ko jëmee ak Macky moom wërta bokk ci élection yi ñu jëm. waaw day bokk nag ci élection yi. day bokk. day bokk ci élection yi présidentielle Macky Sall da nga jàpp ni dina ko laaj am na fitu laaj ko Sénégalais yi moom moo ne woon ñaar yu tegaloo. jàpp ma ko jàpp ko de moom moo noon ñaar yu tegaloo. Hmm. jël ay ministres ñu bëriñ ci plateau yi 2019 pour ñu leeral ko askan wi mu dugg seen nopp yi. waaw ñaar leerlu leerlu askan wi yëpp ba élection dina passé. Hmm. gouvernement bi di renouveler poste yi ñoom ñëpp ñu changé wàll leen. Hmm. na leen na seen gémmiñ ab diir. ñu defar mu des élection yi des un an. ñoom lañu la ñu goqatoon la ñu waxoon di siiwal ko. ñu indiwaale leen jox leen ay engagement ay postulaire ku mel ne ki yor euh, ministre de la euh, justice. waaw xam ne moo solution bu mag la yàgg toon fu ñu wax ko. Mhm. dañu ne ko léegi kaay da nga war a wax lañ bëgg tey nga dindi ko kaay def naa ministre de la justice. Macky Sall bu benn doomu adama am xel ñaar sikk sàkkare hmm. day bokkam du bokk Macky neex na xat day bokk ci élection yi présidentielles yi. Hmm? am na ku ma dégg mu ne bu bokkee day gagné de. 17 millions d'habitants yi bu ñu dee woon sax dee. Hmm. du tee Macky dafay de Macky day bokk ci élection yi. ak li mu fi wax lépp sëriñ bi. dafa am ma joxal benn xissa waaw ci politicien xam ma man bu mu déggee buy xel ñaar. Hmm. di voir politicien. Hmm. dama xam ne kii comprendre lu xew. damay dégg Oustaz Khady Niass di ko joxe exemple yu bari. mu ne am na benn góor goo xam ne da doon tukki rek. tukki. benn oto romb ko benn kàr kàr romb ko. yëpp yëpp ñetti nit. mu arrêté leen yëpp baa leen ma gars yi ne ko ah dañoo fees te moom gis na ne am na plan bu des waaw ñu dem ba si village ba oto bi këpp waaw waa ji ñëw ubbi port bi gis ne ñaar ñi dee nañ ma des na kenn ki mu gas di suulal en attendant sappo di ñëw mm-hmm. troisième personne nee na bi mu koy suul waajal naa ko sëñ bi deewu ma de mun na ko wax politicien la de <laughs> waaye dégg nga bu yàgg <laughs> kon daal waxi président Sall li ñu bëgg méngale foofu mooy wax na ko waaye du ko def dama ne la Macky Sall mm. day poser candidature 2024. Hmm. yéen a xam fu ngeen mën a jaar nag. bu jàpp nga ni jàpp nga bu bu ko bu ko déclaré élection dina am ci réew mi maanaam dinañ dem élection. bañ dem élection. ah oui dañuy dem élection. élection day am ci réew mi. mais moom épinglé nañ teg nañ ko nee ni ko yow bokkoo wutal mbër mu la demal mais waroo bokk. xam nga loi bi bu affaire bu ñu bëggee nga daanu. Hmm. dañ naan da ngay commencé ca lañ njëkk wax. waaw avant xam nga day ci loi bi. Hmm. dañ njëkk wax ne deux mandats. cinq ans léegi ñoom ñoo fa ñoom moom ñoom bi ñu bind affaire bi. waaw sept ans waxuñu sept ans de. ah yooyu dañuy cinq ans. cinq ans ñaari mandat yu cinq ans la wax. ci constitution bi ci constitution bi lañ ko wax. kon baatu référendum bi looloo ko taxoon jóg. looloo ko taxoon jóg léegi nag dañu bëgg xamal léegi ne sept ans yi bokkul. léegi cinq ans yi nag mooy bi mu nekk ak bi war a ñëwaat. Hmm, moo tax ma dégg Bamba Fall naan euh, deuxième quinquennat du deuxième mandat mais deuxième. quinquennat deuxième quinquennat. c'est tout tout tout wala nga jàpp ne réew mi léegi après dinañ dinañ ci dem ak moom. moom moom kay dama na la. Hmm. wax naa ko mi moom sëñ Tuubaa fi tëdd ak sëñ Maalik fi tëdd ak hmm. bu xëy boo ngeen wóor ne comme léegi député yaa ngi xotti xormaay seen sët yi hmm. nañu bàyyi xel ne moom dëkk bi gëm naa lu mu yàgg yàgg dina tàkk te loolu bentoo mu commencé ndax yàlla mel ne ko wujju boo xam ne dawul xare hmm. Ousmane Sonko dawul xare waaw loolu laa foofu laa bëggoon jëm moom dafa mel ni moom nee na ko boo insister dañuy jëmbarloo yow ci mbedd mi weesu ne foofu xam nga ko jënd ku jënd avion un ñu ne am nga bato. waaw dem fu la neex. yow mi daal yu bëri. Hmm. am wujj boo xam ne na ne lépp luy la mos a jox depuis 2012 ba léegi bis moom fi bis ba lu wutoo. Hmm. dañ ko urité ba mu leer. ba noppi nga lebal ko moom si wujj bi loo xam ne bu la ko fayee yow wóor na la ne sa place remonté doon. Hmm. kooku est ce que di nga nangu nekk candidat. moom dana bokk ci dana bokk ci émission de Ousmane Sonko. bii. gëmoo ne dina bokk. gëwuma ne Ousmane Sonko dina bokk ci élection 2024 yi. foo ko teg te xam nga fan lañu mujjee. Mhm. da ngay dem ba projet am. Mhm. ñu ne ko dindi nañ la violé violé woo xale bi. projet léegi loolu léegi ba léegi baal dencal ma la ba ñëw ci incha allah <laughs> ak ndax dina bokk ak du bokk. loolu léegi ñu ngi ciy ñëw léegi kon pour ñu tëj fii. Mhm. kon daal yow jàpp nga ne man na président Sall da koy laaj. waaw mais jàpp nga ne su ko laajee dañuy dem ci élection nii rek. nii dem. day dem élection. ñu bari nee nañ même bu demee waa ji du jàll premier tour de ma du jàll deuxième tour. ah ci kaw. nee nañu deuxième tour yi mën naa nekk ñaari opposants yi dem mais président Sall dañ koy éliminer. ci kaw nañu xoolaat. Euh, code électoral bi. Ah, wóolu woo bu fekkee nii lañ ko bëgg yi ba élection. Hmm. Ousmane Sonko ak ki mu àndal ñu dem. ah oui saa waay day gañewaat 53 pour cent wala 56 pour cent. d'accord.